alhamdulilah lumière donc euh, euh, sant yàlla bu baax a baax Thierno Omar jërëjëf ci taaliq bu rafet boobu nga def euh, ci kaala macha allah ma jërëjëf Thierno Omar ci taaliq boobu bu rafet boobu nga def ci mbirum kaala nga xamante ni ah tabarakallahu am na ci <laughs> yenn bu diine yoo xamante ni sax daanaka. Euh, ñëpp ñëppay kaalaw fu hmm. mel nii Medina Gunaas hmm. yaakaar naa ni foofu néew na nga gis fa hmm. ku kaalawul te ku kaalawul sax yaa nga sol na waaw xam nga alaaj yi alaaji Mamadou Seydou ku yàlla dimbali woon la ci fonk sunna yonent bi sallallahu alayhi wa kooku mbootam la woon fa tabarakallahu du ko defee nag euh, mbokk yi comme indil nañ leen kaala ci yonent yi alayhimu salaam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saxaaba yi ci lawliyaa yi ñi ci xam ñëpp ba ci sunu wala yu jamono jii ak sunu sëriñ si sëriñu jamono jii macha allah wax tamit njëriñu kaala ci mën a mën cee tëdd mën cee julli mën cee ëmb say bagage mën mën koo takkee say yére tamit pour jéggi ndox wala pour liggéey wala pour sonn ak sew-sew boobu Thierno indi ci ne kaala ci ndigg lay jiitu bala muy dem ci ci bopp sinon tamit coono rek lay lay indi su ko defee nag euh, l'islam diine symbole la euh, lépp symbole la xam nga duñu yonent bi waxee nañu euh, bu su su bisu iit jotee doo doo doo jaaree ci yoon wii sooy wàññeeku jaaral ci beneen yoon su ko defee dinañ wax ne jullitikat tabaarakallaahu ñu bari lañu te loolu dafa am benn pression euh, bu muy dox ci boppu noonu lislaam yi dinañ naa ah, julliti ñoo fees fépp macha allah euh, kon loolu symbole la diine dafa bari symbole jàkk symbole la juma symbole la imaam taxaw bi muy taxaw symbole toog yi muy toog symb lépp diine dafa symb diine dafa bari symbolisme lool mu mel ni nag ci biir lislaam nitu yàlla yi boroom xam-xam yi ak ñi nga xamante ni ñoo am cër ci diine yëpp daanaka kaala yi tamit noonu lañu séddalikoo ci biir euh, lislaam mooy euh, boroom xam-xam yi ak waliyu yàlla yi ñi mooy ñi dem ñi fi nekkatul ak ñi nga xamante ni ñooy waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo gisee ci lislaam ñetti couleur kaala yi ñoo ci gën a bari mooy noir ak vert ak blanche ñetti couleur yi léegi nag euh, peut-être ci réew yi nga xamante ni xamuñu culture kaala kaala mën nga gis ku nekk di jël kaalaam rek takk hmm. mais bu dee euh, ci ñi xam dëgg-dëgg culture culture diine culture euh, réewu l'islam yu njëkk yi da ngay xam ni foo koo gis ma commencer ci ñu baax ñi ndax yonent bi moo wax ne nan leen jiital te bañ leen jiitu ahlu bayt waa kër Seydina Muhammad sëtu yonent bi salaa salaam ñoom li ci ëpp seen couleur bi ñuy kaaloo mooy kaala gu ñuul waaw am na réew yoo xamante ni koo gis mu sol lu ñuul mu kaa mu kaaloo kaala gu ñuul xamal ni kii sëtu rasulullahi la sallallahu la wa sallam te loolu mooy li ci ëpp waaw kon ñu ñu bañ a guddal foofu loolu am ay junj yu bari yu ca nekk ndax dinaa ñëw ci weex bi ak ñuul bi ndax léeg-léeg di nga gis ñeneen ñu koy boole waaye bi ci topp mooy lislaam su taxawee borom xam-xam yi ñoo ko taxawal borom xam-xam yi nag ci biir diine li ci ëpp kaala gu weex la ñuy kaalawoo olamaa wu yépp seetlu leen borom xam-xam ponkali borom xam-xam yi ngeen di seetlu seetlu leen leen ci internet xool leen leen ci YouTube ponkal yi ngeen dégg ca Mauritanie ca yemen ca Maroc ca Tunisie ca Arabie Saoudite ca fépp fu mu mënti doon seen couleur bi nga xamante ni ñuy takk seen bopp di météo di kaalawu couleur blanche lay doon ndax couleur blanche foo ko gisee ci culture diine mooy boroom xam-xam ñoom ñoo koy takk léegi nag mu des euh, couleur vert couleur vert mooy couleuru wëlu yàlla yi mooy couleuru tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy toppatoo xabru yi waaw soo demee ci xabru wëliyu koo fa fekk mu def couleur couleur verte xamal ni ñoom ñooy ñoom ñooy wattu barab ba ñoo koy toppatoo wëliyu yàlla yi tamit vert mooy seen couleur ndax couleur vert euh, moom mooy mooy junju euh, mooy junju cëru yàlla mooy junju doole yàlla ndax verte mooy couleur bi ëpp ci kaw suuf vert mooy couleur bi ëpp ci kaw suuf

premier sens am moy euh aljanna ci bopam mm-hmm. premier sens am première euh, maanaam mm-hmm. mooy lan premier sens am mooy mm-hmm. jardin ta jardin couleur ba upp ci jardin moy couleur verte wa kay kon aljana ci bopam couleur ba fa upp ci bir aljana moy couleur verte wa kon couleur wex euh, couleur ñuul mo jur couleur verte couleur verte euh, couleur wex moy borom xam xami couleur euh, euh, weex moom moo jur couleur verte ci l'islam dégg nga wax ji donc yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak waa këram ñoo jur borom xam-xam yi borom xam-xam yi ñoo jur wëli yàlla yi al ulama u warasatul te képp koo xamante ne doonu nga wëli yi da ngay nekk mujj nekk ci euh, góor yàlla yi nga xamante ni yàlla da leen a donnale xam-xam yi nga xamante ni moom la sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam yoroon kon ci tënk yaakaar naa ni leer na naññ ne donc foo leen gisee ci mm-hmm. ay euh, couleur mm-hmm. ci lislaam mm-hmm. ci jàkka ci conférence ci ci ci jotaayu diine foo leen gisee ci ay couleur rek kenn ku ci nekk di nga mën a comprendre exactement couleur bi lan lay signifier ak couleur bi lan mooy maanaam bien que nag mbokk yi am na ci yeneen réew ak yeneen culture yoo xamante ni couleur noire bi mën na signifier leneen soo demee Russie am na lu mu fay signifier soo demee Afghanistan am na lu mu fay signifier loolu les affaire la ni ça concerne le monde musulman la culture je parle même pas de la culture arabe mais de la culture musulmane à thaqafa al islamia dina vert bi ak blanche bi euh, euh, blanc bi noir soit verte mm-hmm couleur verte à couleur blanche wala ñu boole couleur noire à couleur blanche Lors tamit di nga di nga koy gis léeg-léeg ci nit yàlla yi wala ci borom xam-xam yi léegi nag foo vert blanche euh, couleur vert couleur blanche kooku dafay dafay dafay junj tamit ne de la ba noppi di wëlu yu yàlla loolu dinay am mën nañ koo jël kaala gi ci kaw di di di du lam teg ca mbaggam